moom la Birahim wax léegi léegi li fa xew nekk na loo xamante ne bii tey ñu bëri dañ ko ñaawlu. mais am na ñoo xamante ne bii niñ ko ñaawloo si un peu nekk loo xam dafa loo xamante ne war nañ ci mën a jàngatal. <laughs> parce que dama xalaat démb ma ne lii nga xamante ne bii xew na diwaanu Ngor ba tax ñu fay rey ay doomu aadama naka la mën a amee depuis ay jour te kenn jógu ci ci ay kilifa wax ci surtout li nga xamante ki nga xamante moom mooy njiitu réew mi Macky Sall peut-être nag démb pour trouver une solution mais euh, ni ñu koy faral di waxee tamit ne kilifa du dara day jikko rek nga loolu tëll rek nga ci wax déedéet dafa war a am noo war a génne noo war a waxee mais quand même la boo xamante ne bii tey waroon na mën a yem ca bés bu njëkk ba warul warul woon sax mën a am parce que état euh, président Macky Sall il est la personne la plus informée au Sénégal xam na tey li nga xamante ne bii tey mooy am euh, ca diwaanu Ngor boobu boobule lan lañ fa bëgg a def mm-hmm. li nga xamante ni moom lañu fa bëgg a def muy brigade de gendarmerie wala caserne comme ni ñu koy mën a waxee. Mm-hmm. waroon na am ci waxtaan avant que ñu fay ñëw di def ay jéego. di def ay di commencer travaux. parce que yow boo nekkee ci kër sax nga am fa kilifa ci kër gi moom bu bëggee boo bëggee defaraat kër gi sax dina la avertir au moins ne la lii ak li ñu fi bëgg def. au nga jël say matukaay xool nooy def mais bu xëyee xëy rek commencer toj commencer tabax yow di nga am noo réagir même mm-hmm. fekkente ne moom moom këram waxuma la ak ñoo xamante ne bi tey dañoo nekk ci seen dëkk durant des années di fa dund chaque instant ñoo xamante ñoom fa lañ fa dëkk ba maanaam yow nga nekk euh, njiitum réew wala nga nekk koo xamante ne bi autorité nga mm-hmm. nga ñëw bëgg force forcer bëgg a jaay doole même si nga yàq moom am na ñoo xamante ne moom noonu nga waroon demee à l'avant pour mm-hmm. waxtaan ak ñoom au moins nga trouver benn terrain d'entente ba nga xamante ne benn dégât du fa am tey nag li fa nekk bon c'est déplorable mm-hmm. mais quand même force reste là restera la loi noonu lañ koy mën a waxee donc nañu xoolaat daal nu defee bu ko defee ñu d'accord Lamine avant ñu jóge foofu Mansour li li xew Ngor euh, coowal coowal suuf mais euh, dañu gis ni foo jaar ñu dugg